dal leen ak jàmm ndax dañoo war a taal air sénégal ndax clients yi nga xamante si ñooy jël naka boobu la roppalaan mer ba futu la ñu dee def ubbil yéenekaay bi direct news ndax air sénégal moomee yéenekaay bi nee amul leen loo xamante si sàllu na ak drapeau sénégal ndax client yi dañoo souffrir boo xamante si kenn tegul ndax noom nag yéenekaay bi ne fi ñu toll ay pexe dal si am l'info yéenekaay dikkaat ci leneen moo di nag les def rek ba élection ak ñaari fan yi ñu jàpp nag ci weeru ak lañ koy méngale ngir fexe rek ba salfaañi ko waaye yéenekaay bi leen fa nag nee na ñu ngi géetoo taxaw di leen di xaar ñu xaar leneen te Macky Sall nag joxe na Ousmane Sonko nag ay droit droit yoo xamante ne si mu ngi ko wékke ci loi d'amnistie loi d'amnistie boobee nag passé na commission des lois à boobee les victimes nag bu amnistie boobee mun nañoo ñu toppandi leen ak auteurs ñu sukkandikoo Camara doctorant en droit privé le silence assourdissant bu ex Pastef loolee moo jaaxal yéenekaay bi nañu noppee nañu parti pataaral ci mbir mi réew mi yéenekaay dikkaat naka éligible na naka bi ne fay mu ngi dal des concerts naka dans l'exposé naka des motifs yéenekaay bi naka à quoi profite projet projet boobee naka lan moo ci nar a profitoon amnistie pour ñenn ñi ak ñoo xamante ne droit de vote ak élection fenêtre boo xamante ne ngir fexe bu

Macky Sall lave de sa lave à de Javel Sonko ak ñooñam naka fi mu toll na ragg ba ñu set wecc naka le texte examiné tey ji naka ci commission naka foofee ci assemblée nationale plénière niki suba la ay infrastructure yoo xamante ay infraction criminelle correctionnelle y compris les faits des réseaux sociaux loolu yëpp naka dañ koy effacer ba mu set wecc ci loolu Walf Quotidien dikkaat ci projet de loi d'amnistie boobee boobee naka rejeté nañ taxe bi nga xamante ni Amnesty International daal dina sànni fële naka boobule taxe nag ndax moom jàpp na ne fi mu toll nii loolee ànd ak guute ci pétrole ak gaz Antoine Diome mais les gaz il y a un bon niveau d'avancement de nos projets pétroliers gaziers l'observateur na Amnesty le texte de tous les dangers on est en train d'affaiblir naka di néewal doole naka la norme pénale naka éclairer ay possibilités yoo xamante ni si ay poursuites ci kanamu cour pénale internationale ñoo ko déggandoo jaageen jëf ba ëllëg